jeewal soriwut fii xanaa jeewal moom néewul ci asamaan si jéewal néewul malakoot jéewal néewul Conakry jéewal ngi nii tout près ñu ne la am à 1895 fi la sëñ Tuubaa jàmmaarloog nasaraan bi mu ne ko doo fanaan mu ne ko daay fanaan doo yend mu ne ndigal li ma jot ci sama borom mooy fanaan defe naa ku ay espèces si wër yori fetal na la doo fanaan nga ne danaa fanaan ci biir xur wi tañ jot ordre te du même porte moo la jël si ndax l'éclair mi la jël si booba dafa nekk góornóor bu Louga bu tubab bi mën ta joxar bi fetal na la jógal nga ne duma jog ab tubab du la wax wer feeñ ab tubab du la wax woril sëñ tubaab bu nangu woon woril ak woral du sañ ci 1886 89 88 bi mi sañ ci tuubaa bi yonne yónnee nañ ngir bañ sëñ tubaab sañ ci du ko jaral genn mbakke beuri yit bam jamar lok ñomi day négocier delu ginaaw te teewul mu wane fakk dëgër jeewale ngi nii moom senegal nga dëkk du ko fenn dégg nga turu jeewal loo ci bëgg a weddi ak tay tay lu rek la te yor-yorub jeewal gis nga ko boo ci xamul dara bi du gis tele bi ñu annoncé màggalu jeewal xanaa war ngaa laaj istibaar bi lu ko waral ñu ne dajeeg sëñ Tuuba ak tubaab bi te yëgal nga sa bopp ne tubaab yi ngay sukkandikoo ñoom bind leen ci seen i archive wane leeraayub jeewal ne keroog am nañ tiitaanga joo xam ne liñ gis mu def renfort pour ñëw taxaw ci wetu sëriñ Tuuba xamuñu lu def loolu bu la loola jaaxle am na béréb bu ñuy wax ndar 5 septembre bu bu set murid di takki wata di màggali ñu ne fu jëm 5 septembre ñu ne suuru six ma Cheikh Amadou Bamba ci birob ndar mu julli fa ñaari rakka ku taxaw ci kanam góornóor julli ñaari rakka yoo xam ne 45 minutes la diire ñu tegal la taabal tegal la këyit nga signé xul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kooku tubaab du la jox weer wooy woree bu ko nangu du dem fenn Bamba abonné wul ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo ak fépp foo di nekk ci àdduna bi ak fépp foo di nekk ci àdduna